alors Alioune Soumaré maa ngi lay nuyu di la jaajëfal ci sa disponibilité. alors di fàttali ni doonoon nga ancien international sénégalais euh, sol nga tam maillot Jeanne d'Arc bu Dakar ci année quatre-vingt. ki jiite euh, football mondial di Gianni Infantino dafa sàkku ci euh, CAF di confédération africaine de football di kuréel gi nga xamante ni moo ngang football fii ci diwaanu Afrique ñuy amal Coupe d'Afrique des Nations ñeenti at yu jot daal di bàyyi ñaari at bi noo gisee xalaat googee. jërëjëf Babacar. Mhm. si si eh, si laaj bi ma laaj. Mhm. Euh, Gianni Infantino comme ni nga ko waxee mooy jiite football mondial bi. Mhm. léegi euh, moom de dafa def proposition pour que ne kan euh, Coupe d'Afrique des Nations ñu koy joué ñeenti at yu nekk au lieu ñaari at yu nekk. man ma yaakaar ni ah xalaat boobu rafet na. ndax li tax ma xalaat ne rafet na mooy ñaari at dafa xaw a gàtt. ci compétition bu mel nii Coupe d'Afrique nga xam ne boo koy xayma. si si si compétition majeure yi ñu def ci àdduna bi. Mhm. soo jëlee coupe du monde teg ko jël coupe d'Europe des nations teg ko coupe d'Afrique bi nga xam ne moom la ñëpp di gën a seetaan ñëpp yëpp di gën a xaar. Mhm. donc organiser ñeenti at yu nekk pour dina tax euh, dëkk yi nga xam ne ñoo organiser dina gën a defaru bu baax a baax a baax a baax. Mhm. ba pare joueurs yi aussi noppalu ko si diggante parce que ñaari at yu nekk dafa métti. parce que dañuy ñëw fii football ay éliminatoire delluwaat seen dëkk. yi nga xam ne ñoom ñëpp Europe lañ nekk. dafa joué ay compétition yu métti. Mhm. yaakaar naa dina tax na dina tax na seen yaram yi noppalu ko tuuti. Mhm. ba pare <laughs> xiif mi ngay xiif si ñeenti at di xaar compétition ñeenti at boo si demee xaalis mi ngay si mi ngay mooy ëpp si ñaari at yi nekk. Mhm. alors moom dafa ni bu ñu amalee Coupe d'Afrique des Nations ñeenti at yu ne koppat gi nga xamante ni euh, ñu ngi koy gañe mën naa yokk ñeent wala sax juróom-benn ci euh, kan yi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ñaari at yu nekk est-ce que bokk nga ak xalaat ba tey ci moom ci loolu. waaw bokk nax moom xalaat parce que gis nañ fi ay ay coupe d'Afrique des nations ay CAN yu fi organisé si dëkk yoo xam ne. Mhm. kenn du seetaan équipe bi organisé bu dëkk bi joué xoolal Égypte bi ñu jógee bii passé. Mhm. bu Égypte bi joué stade des fees del mais bu mhm. Égypte joué kenn du fa ne. c'est la même chose bi ko ay Gabon wax yeneen ñëpp organisé pays bu pays organisateur buy joué rek la stade bi am ni donc des fois da ngay donc moi je pense que loolu lépp dafa ko xalaat. xayma ko. pour parce que Afrique dafa am dañu xaw a néew doole sur le plan économique ba nga xam ne. Mhm. nit ñi sax dinañ bëgg a dem bi yooyu moo tax bu ñu ko defee tous les quatre ans. nit ñi mhm. yàkkamti bi ñu koy yàkkamti yàq séntu bi ñu koy séntu dina tax ba ku nekk waajal sa bopp. Mhm. ba nga xam ne bu compétition bi ñëwee ku si nekk di nga a ñëw toog sa tànk bu baax sa dëkk joué wala mu bañ a ba pare aussi comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen la. a am temps loo gëj a Mhm. mais loo xam ne su da nga koy def régulièrement ñaari at yu nekk bu yàggee day am benn sentiment de lassitude boo xam ne dafay am même mhm. au niveau de certains jours parce que soo jëlee exemple ay équipe bu mel ni Nigéria bu ñu joué ay éliminatoire kan wala ay kii duñu sowar seen joueurs yu bari dañuy bañ mhm. mais bu dee coupe du monde la nga xam ne dafa nekk loo xam ne dafay faspe ñoom ñëppay bëgg ñu loolu tam day euh, boo si dem lu yàggee bu yàggee bu yàggee day xaw a perdre un de saveur ñeenteel nag temps d'attente dafay yàgg ba nga xam ne ku nekk da nga koy xaar di ko xaar nga xam bu ñëwee da nga ciy la nga mën. Mhm. mais euh, Coupe d'Afrique euh, des Nations c'est la crème du football africain boo ko jëlee ñaar yóbbu ko ñeenti at est-ce que loolu du wàññi dooleem gëddam ak dayoom. non non loolu du wàññi gëddam mhm. parce que. bu fàttali si suufu ginnaaw si keppaaru Coupe d'Afrique des Nations. Mhm. am na beneen championnat d'Afrique des Nations bu bu bu bu Issa yaatu créé woon nga xam ne moo nekkoon CAF. Mhm. loolu xam nga li taxoon mu def ko. Mhm. parce que dafa xooloon ne. Mhm. kan bi joueurs yi koy joué yëpp kenn dëkku ci Afrique. c'est des Africains certes mais ñoom ñëpp ñu ngi daan seen doole en Europe. wala feneen. donc euh, joueurs yi nga xam ne Afrique leen toog amaguñu doole pour dem. kenn du leen gisati. dootul duñu am dara lu ñuy joué donc mu créé woon ñaari at yu nekk aussi sànn day tax aussi nga xam ne ñi nga xam ne. demuñu woon ñoom mu nekk seen genre d'Afrique des nations. Mhm. ba tax ne continent bi dina continuer moo tax ma yaakaar ne bu ñu defee bële ñeenti at yu bi si ñaari at nekk. Mhm. dina a permettre CHAN boobu am ba mhm. tax joueurs yi si joué tam am chance ñu ne dem mënee seen naa ne yàqu ci dara dara dara l' essentiel na CHAN bi continuer reste si ñaari nga xam ne joueurs africains yi nga xam ne demuñu ñu toog le niveau mhm. mu mel ni contradiction xaw na am ci yëf yi ndaxte FIFA mi nga xamante ni mi ngay sàkku ñu amal Coupe d'Afrique des Nations euh, ñeenti at euh, yu jot. am na geneenu projet moo di fexe ba coupe du monde bi nga xamante ni moom lañ jagleel jigéen ñi fi ñu koy amal ñaari at yu ne daal di dakkal ñeenti at yi loolee nag ngir yokk ba noppi daal di gën a médiatiser popularité football féminin loolu noonu est-ce que amul contradiction quand même bëgg amal bile compétition ñaari at bële nga bëgg ko ñeenti at. non non gisuma si contradiction xam lu tax. Mhm. soo ko seetloo ci waxtaan bi li ñu waxoon mooy xam nga bi def compétition ñaari at yu nekk. Mhm. dañuy bëgg mu développer pour football bi gaaw développer. Mhm. xam nga actuellement football africain bu jigéen ñi. féminin bi amagul développement bi góor ñi am. donc boo bëggee développer dara da koy répéter régulièrement mhm. comme ni tubaab di wax rek la répétition est pédagogique booy mhm. jouer régulièrement bu mhm. yàggee nga xarañ léegi compétition boobu comme jigéen ñi la preuve ko jigéen ñi bu ñu demee coupe du monde si gën a muy méttee si ñoom noonu la méttee woon si góor ñi dans les années soixante dix ay Zaïre bu ñu daan dem coupe du monde l'ex RDC te mu nekkoon te mu nekk li RD Congo bu ñu daan dem coupe du monde dañ leen daan dóor que kenn mënatu leen door score boobu. Mhm. te dinañ àgg dinañ gën a sori dinañ jàll du premier tour dem voire même mhm. donc jigéen ñi ñoom seen seen seen seen seen seen manoore seen man mën àggagul fi yu góor yegg moo tax il ñu leen bàyyi ñoom. Mhm. ñu def tous les deux ans. deux ans yi dana leen permettre ñu développer parce que booy jouer régulièrement si ngay jàng ba pare joueurs yi dina am def ñeent wala ñetti kan am expérience. moi je pense que foofu pour man mhm. amoon na si amul contradiction au contraire mhm. dañu bëgg a mhm. ni football bi defoon tous les deux ans ba développé wu ba nga xam ne léegi Afrique joueurs yi amul équipe sélection yi boo jël presque majeure partie bi yëpp Mhm. ñu ngi joué en Europe parce que dañu développé léegi. Mhm. donc boobu amul pour man amul contradiction. Mhm. mais wax nga ko sànq nga ni euh, l'appétit vient en mangeant. Euh, compétition bi nga xam te ne bëgg nañu ko. jagleel ko jigéen ñi muy coupe du monde féminine bi boobee moom li mu bëgg moo di jëlee ko ñeent yóbbu ko ñaari at. mais lan moo tax bu fekkente ni euh, nee nga l'appétit en mangeant ñu bëgg a jëlee kan ñaari at yóbbu ko tamit ñeenti at. kanu góor yi. Mhm. nga wax waaw voilà xam nga góor ñi. Mhm. bi ñu commencé Coupe d'Afrique ba ba léegi. Mhm. ñaari at ñaari at ñaari at. donc atteindre na benn degré de maturité atteindre na benn parce que les sélections africaines léegi dañu am doole. am nañu doole xoolal Sénégal. daje na fi ak Brésil ndam demul ndam dikkul. Mhm. Algérie daje na fi ndam demul ndam dikkul. dëgg la alors que bu njëkk bu la Brésil jàppaan da ngay sept huit ngay jàpp ngay mooy. waaw da lay duma duma yu métti. duma yu métti c'est-à-dire que joueur africain xoolal Sénégal. Mhm. Neymar kan mooy kan mooy coéquipier am au Paris Saint-Germain. Idrissa Gana Gueye waaw nga dem nga dem Liverpool. Mhm. kan mooy coéquipier wu ñoom kii. Fabinho Alisson Sadio Mané mooy seen coéquipier. c'est ça. Mhm. voilà donc léegi foofu nag la football africain toll. amatul pour jouer tous les deux ans parce que am nañ ko léegi jàpp mat na. Mhm. mat na sëkk. léegi mu ñu ngi wax joueur gars ñoom ñëpp nga foofu. donc moom foofu laa gisee man affaire bi te foofu aussi. boo ko jëlee côté boobu di nga xam ne c'est vrai. le football africain développé wu na bu baax baax. ces vingt dernières années. wax dëgg yàlla. Mhm. donc bokk la bu jigéen ñi comme ni ko ñoom dañu war a dañu war a dañu koy suuxal. Mhm. déjà xam nga fii au niveau des clubs jigéen yi fu ma sax kenn xamul kañ la ñuy jouer. Mhm. fu ñuy entraîner seen match sax dinañ leen ko jouer te doo ko yëpp moo tax nga war a ko jouer tous les deux ans yooyu. pour nit mun ko xam miin ko voilà. kon daal yow su ma la déggee ci kàddu yi nga yëkkati da nga ànd ak euh, idée bi nga xamante ni Gianni Infantino di président bu FIFA joxe na ko. waaw man nag wax dëgg yàlla. Mhm. Ah, ànd naax moom ci loolu parce que aussi. Mhm. te pour man c'est une vision futuriste. Mhm. mu mel ni euh, amal euh, kan ñeenti at euh, yu jot bàyyi ñaari at yi mën na indi peut-être saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ni dina juddu ci diggante club européen yi. ak joueur africain ya fay jongante ndaxte dañoo gis ni saa su ne bu euh, Coupe d'Afrique euh, tàmbalee rek euh, xay ay la yëwan coow am ci diggante joueur yi ak club ya nekk ca bitim réew est-ce que loolee mënul andi saafara ci mbir moomee. loolu réflexion moom foofu la juddoo. Mhm. la juddoo. parce que sànq ñu ngi koy wax si nasaraan. ñu mhm. ngi bu njëkk ba. boo daan bëgg a libéré wu pour ñëw football sax même les éliminatoires. Mhm. équipe africaine daan am problème parce que seen joueur daan mun a libéré moo tax li a def mooy def dat FIFA. Mhm. dat FIFA li ko indi mooy léegi bu fi bu dat FIFA amee. Mhm. joueurs yëpp am nañu liberté am nañu permission dem jouer seen club soit pour ay match amicaux soit pour ay éliminatoire mhm. ñëpp si yem nag muy Amérique du Sud Europe ak Afrique. loolu dañu dañu mondialiser uniformiser affaire yi. foofu la foofu la àdduna toll léegi. léegi village la rek. Salanter léegi lii xew fii mooy xew fii donc tey jii bu amee dat FIFA. Neymar day jël avion dem Brésil. gàll gay jël avion ñëw Sénégal. ñu mhm. football bu ñu paree delluwaat Paris Saint-Germain te kenn du leen mënal dara. Mhm. kenn du leen wax dara kenn du leen xoolee dara. Mhm. alors euh, donc loolu. waaw foofu ah, tamit. c'est un problème bu ñu réglé waale la en même temps. yooyu yëpp xam nga léeg-léeg da ngay benn affaire pour régler des problèmes. c'est ça la la la réalité actuellement du Gianni Infantino wax na itam ne am na mbëbëtu yëkkati benn milliard de dollars jox juróom fukki réew ak ñeent yu nekk ci diwaanu Afrique bu ko defee ñu am ab stade bu méngoog jamono wala sax ab centre technique d'excellence est-ce que mën nañoo tabax. ab stade bu méngoog jamono euh, ci benn milliard de dollars jagleel ko pays africain bu ne ñi ngi toll ci juróom fukk ak ñeent ma fàttali ko ndaxte boo xool liñ naan euh, low stade maanaam stade bi nga xam ne au moins dina ci mën a football di ci équipe nationale di ci mën a recevoir pour ñu euh, sànc ko faaw rek nga am cent deux cent wala trois cent millions d'euros est-ce que jàpp ngeen ni benn milliard de dollars képp mën na tax réew Afrique bu ne am benn terrain bu méngoog jamono. waaw un milliard de dollars xam nga tuutiwul tamit. Mhm. un milliard de dollars waaye sept pour daf leen di ñu tàmbali. Mhm. da ngay tàmbali xam nga booy wàññi si benn lay commencé. dëgg c'est-à-dire que bu ñu ko jëlee commencé si euh, pays yi nga xam ne dañoo war a organiser. Mhm. commencé leen doter des stades comme ça. ay infrastructures yi nga wax. progressivement avec le temps xam nga tout s'inscrit dans la durée lépp c'est dans la durée si si waaw. di ko def di ko def bu yàggee pays ku mel ni Sénégal classement FIFA ñoo jiitu ci Afrique mhm. amuñu stade bu ñu footballee ba léegi ñu ngi wër fu ne leen ci dugg mhm. ah stade bu ndaw actuellement Sénégal buy recevoir Lat Dior la ñuy stade ah mënul jax mhm. mun na jël quatre-vingt mille cinquante mille places selon les matchs yooyu yëpp ay développement la yoo xam ne bu ñëwee ci dëkk dina leen permettre ñu am infrastructure africain yi dañu am yeneen ittee lañ moo leen leen tal lu du tax ay stade pour ñu tabax stade rek il faut ñu ne yaay organiser Coupe d'Afrique des Nations ñëpp door a jóg daw ku ñu jaar fi ñuy jaar fële tabax stade. Mhm. stade loolu yëpp parce que dañoo am yeneen priorité on a des priorités yi ñu am mooy santé bi. Mhm. wér-gu-yaram jàng mi. Mhm. donc loolu tam day dimbale pays africain parce que booy xool da xool aspect yëpp lii lu muy apporter africain nga xool li mun la mun a jëriñ nga jël ko si lu baax. laaj bu mujj nag après ah, ay ay kii la rek ay mottali lay doon incha allah. laaj bu ca Cameroun jàpp nañu ko aljuma fukki fan ak juróom ci weeru janvier jëm euh, diber fukki fan ak ñeent ci weeru février doo amat yi ci euh, juin juillet comme ni ñu ko waxee woon est-ce que loolee xalaat bu baax la. man jàpp naa ne xalaat bu baax la ndax peut-être que organisateurs yi. li ñuy jël affaire yi dañu yaakaaroon ne Afrique juin juin été lañ koy joué mhm. loolu yëpp ñu ngi doon sàmmaale joueurs yi nga xam ne dañuy gis jógee seen club yi mhm. bàyyi seen club yi ñëw joué ak nit ñi ñaar mhm. ba xam ne si bari dañu am tolof tolof pour ay ay ay beneen fànn bi mooy Afrique bu ñu fàtte ne am na dëkk yoo xam ne ci Afrique notamment le Cameroun mois de juin juillet taw yi fay taw kenn mënu ci football parce que bu boobaa ëllëg mu duré un mois kan bi dina duré ñetti weer boo ma ndax ay match ñu report mhm. wala match bi démarré ba ci digg bi tas ndax mhm. taw bu bëri mhm. donc loolu tam ah moo tax boo boo ko seetloo Coupe d'Afrique des Nations fii joué yëpp avant avant à part bu bu bu bu bu Égypte bi passé yëpp ñu ngi ko doon joué kële ko doon joué euh, comment dirais ñu ko doon joué janvier février parce que dañoo xam ne Afrique. Mhm. période boobu lay tombé. Mhm. donc xam nga dëkk bu nekk ak say réalité. Mhm. te boo ko seetloo taw yi muy taw Europe ak taw yi muy taw Afrique nuroowuñu Europe moom mun a taw toute l'année mais ay averse ay tibb suuf du mais Afrique yoo xam ne yam na xiin yoo xam bu ko xiinee sax kenn du génn ngay waxatu wala di xalaat. donc pour man def ko janvier février boobu solution la pour sauver au moins compétition boobu. Alioune Soumaré jërëjëf. waaw mhm. mhm. ma fàttali ni euh, suñu mbokk auditeurs yi ne yow doonoon nga ancien international sénégalais sol nga itam maillot Jeanne d'Arc bu Dakar ci euh, année quatre-vingt donte nag juróoguma woon waaye ak xalala yu yees yi dara du fi nëbbee amul dara lu ñu fi mën a nëbb léegi jamono ji daanaka lépp la ñu xam. jërëjëf Alioune Soumaré jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm.